une petite euh, comparaison le 3 avril 2011 avec le président Abdoulaye Wade même contexte politique même tension politique exacerbée même même euh, tentation de troisième mandat <coughs> donc quand vous faites la comparaison je n'ose pas dire que ni euh, président waxu fi dara parce que quand on, quand on rend hommage à nos valeureux soldats comme l'avait fait Abdoulaye Wade en 2011 quand on fait le bilan des investissements massifs pour l'achat de matériel martial matériel militaire etc quand on fait le bilan de d'une partie de la formation des jeunes de l'employabilité des jeunes n'est-ce pas et pour se fixer un horizon en disant avec le gaz et le pétrole dinañ def lu gën a baax lii mais c'est comme si vous êtes en train en fait de conforter le à dire ah président président wax dëgg neex yàlla soxna si xam nga j'ai fait la comparaison en 2011 en ah, wolof Mansour. non xam nga def na comparaison bi 2011 xam nga 2011 Sénégal aussi tamit fii la toll woon à la croisée des chemins ñuy xaar président ndax dina yeewi nit ñi xam nga président amul droit poñi réew mi ñun ñëpp ba suñu bouton yi di waaj a dagg amul amul droit boobu le président il n'a pas ce droit là mais jusqu'à présent les Sénégalais attendent. pour qu'il nous dise véritablement moom est-ce que day compétir ou bien de compétir donc euh, discours bi bon au-delà de euh, des hommages mérités et appuyés yi nga xamante ne bi defal nañ ko soldats yi man gisuma loo xamante ne bi lu bees la parce que par exemple en ce qui concerne euh, le bilan des infrastructures président yàgg na ko wax pont de Marsassoum et cetera et cetera donc man gisuma fi loo xamante ne li lu bees la léegi nag moom woote na dialogue man dama ko bëgg laaj ne ko moom en 2016 2018 li mu waxoon par rapport au jalo mu jëloon ay kilifa dénkoon leen ko conclusion yooyu moom fan la ci toll parce que aussi tamit moom bu nekkee moom mooy kilifa mu woot nit ñi ci ñu ñu ñu ànd nekk benn bàyyi xiiroo bàyyi ŋaayoo bi mais lii tax nit ñi li ñu jàppoon maanaam ñi nga xam ne ñoom la sekk langue politique moom li ñu jàppoon ci wàllu dënn yu jóg dafa am loo xam ne moom daf ko a bàyyi parce que am na ci ñoo xamante ne mais naturellement may mën fay mais seen opinion lañ leen jàppe te ñu ngi ci kaso bi loolu tey jii moom bu defoon pédale douce am lu mu bàyyi ñooñu dañ ko mën a fekk donc mënul fay continuer depuis 2018 président di wax dialogue dialogue dialogue te am na acte fort yoo xamante ne bii moom tegagu ko moom bu ko tegoon tey am na ñoo xamante ne tey daf leen a war a mën a bàyyi ñu dem àggali weeru koor gi ci seen kër te wàññiwul dara ci dara jaam wàññiwul ci dara donc loolu moom bu ko defee dina dina am solo ba pare dina pacifier